man dem naa fa le jeudi je pense. jeudi passé. waaw jeudi si je ne me trompe pas gisante nañu. donc il y deux jours. effectivement c'est ça waxtaan nañu nag vraiment jeudi. Euh, d'ailleurs euh, temps bi moo ma tënkoon sax mais waxtaan nañu waxtaan bu intéressant quand même. bu parce que bon li si li si mel nan parce que Ousmane je pense que li ñuy waxtaan warul bett benn Sénégalais parce que Ousmane yitteem yëpp mooy na lay Sénégal yi Sénégal. nan lay Sénégal def ba jag quoi d'abord ce qu'il m'a dit je vais violer secret de notre conversation il m'a dit que sénégalais yi euh, am nañu ñaari qualité mën nga leen wax lu nekk mais ils ont deux yoo xam ne sénégalais soxorul bëgg nañ lu baax c'est ce pour vous dire que xam na sénégalais yi fu ñu ko teg et puis c'est une réalité en euh, soo soo dee def observation sénégalais yi soxorul aussi sénégalais yi bëgg nañu lu baax bëgg nañu lu baax parce que aussi xam nañu euh, nit ku ñëw avec un parcours mu tëni leen un discours ki est cohérent avec son parcours kooku su ñëwee tëni leen benn discours ne leen réew mi suñu bëggee mu jag fii nañuy jaar lii nañuy def ñëpp jël ko yëkkati ci kaw def ko seen xol loolu mooy firndeel ni Sénégal yi aussi bëgg nañu lu baax mais ensuite euh, bu ñu jógee si loolu mhm. waxtaan ñi sax si affaire affaire éducation ñuy waxtaan si yan système nañu war a def pour vraiment am un système éducatif bu wuteeg suñu système éducatif bi mu yor parce que qu'on qu'on le dise ou qu'on le veuille ou non ñun système éducatif bi qu'on a hérité du colon c' pas le système éducatif qui va développer le Sénégal. kon waxtaan ngeen ci loolu. non on a on a discuté. ça alors comme état de santé kon léegi amélioré wu na. bien bon parce qu'on que dem na ba xàmmeetul sax nit ñi. non bien sûr il est il est il mais pas de façon à 100 pour cent soo ñëwee dina waxtaan yow ça c' est mais quand man bi ma ce qui m'a le plus frappé d' ailleurs c' dire que physiquement il a beaucoup changé hein sérieusement. Mm-hmm. il a beaucoup changé pendant 34 jours 30 34 jours. oui plus d'un mois. vraiment xam nga loolu lekkuloo ndox rek ngay naan xam nga loolu aussi dafa metti mhm. physiquement da ngay diminuer. Mhm. donc pour mu reprendre ses forces. Mhm. du du du gaaw mais petit à petit mais il reprend ses forces mais petit à petit xam naa lay reprendre ses forces pour vraiment mën yenn kii. parce que situation bu mu nekk peut-être yenn activités yi mënu ko ay dox ak ay nangam nangam mënu loolu peut-être il est toujours sur une chaise wala couché dans son dans son lit quoi est-ce que vous comprenez donc pour vous dire que il est toujours dans une situation faible mais alhamdulilah mi ngi amélioré quand même ça il faut le dire mhm. euh, euh, il discute ku fa ñëw dina waxtaan waxtaan ngeen ci aspect politique yaa ngi ko bon c'est affaire parce que am na yoo xam ne aussi waxtaan nañ ci mais c'est pas des choses yi xam ni qu'on doit révéler aussi. Mhm. mais lenn dinaa ko xamal Sénégalais yi ak tous les militants de Pastef qui mooy cest que la question qui agite tous les Sénégalais. c'est sur sa candidature li may xamal nit ñi mooy nañu xam ni notre unique et seul candidat demeure le président Ousmane Sonko demeure le président c'est pas un slogan politique mais c'est un slogan juridique